mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax am mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kattanam di leen ziar bu baax ci koor gi di jégalu ñëpp nag. ni ñu koy waxee 30 minutes chrono ñu tàmbaliwaat euh, di gërëm bu baax El Hadji Modou Diouf euh, Abdou topp euh, di ko ndokkeel di nuyu Ablaye jàlloo di nuyu Sa Ndiogou sooy bu maa jigéen Aïchak waa solution yëpp daal ñu ngi leen di ziar ba ci Serigne fàllu ñu ngi koy ziar bu baax di sàkku ñaan. mais aussi tamit du nuyu ñëpp di gërëm ñëpp tey nag ñu fa yéene dikk ci ay ponk yi am solo mooy rek li ñu xëyee ci suba mooy procès Mame Mbaye ak kii di Ousmane Sonko comme li tubaab yi naan tout ça pour ça malgré que wax nañ ci def nañ ci lu ne jéem nañ ko ci ak li mu jur yëpp ci réew mi pour laver honneur u kii di Mame Mbaye juge jël dogal ne son ko ñaari weer yoo xam ne du ko tëdd mais aussi deux cent millions yoo xam ne da koy fay deux cent millions yi nag ci mbiri Prodac man bu ma demoon ba ci wax naan dañ koy fay woy dañ koy fay waaye buñ ko dee fay xanaa Mame Mbaye Niang dañuy fay sunu vingt neuf ba pare ñu wax ñu fa la dugg bu ñu joxee sunu vingt neuf milliards ba pare Ousmane Sonko jël ci wàllam ñu doog a fay dommages et intérêts yi maanaam Mame Mbaye Niang tamit nanu fay sunu 29 milliards bu ñu fay sunu 29 milliards ba noppi léegi ñu xool na leen ci génnee 200 millions ngir fayalee ko Ousmane Sonko parce que nag fi ñuy rendee kenn du fa jooy góom jamono joo xam ne dañ ne ab nit dañ ko tuumaal ni dafa fopp lu toll ci 200 mille 29 milliards ci kopparu CFA jamono ji ko waroon a topp ngir moom mu lijjanti. sunu alal jooju fan la ko dugal ak lu waral mu jël ko ginnaaw loolu lépp moom kooku di mambay ñaa waroon génne sunu alal tey ji moom moo toppe ci yoon ba ay avocat génn di fëgg dënn mais mambay ñaa li ko ñàkkloo sax tey jii ba tax li mu bëggoon yëpp amu ko parce que bu ñu déglu bi maanaam ñaari at yu mu sàkk woon ak daan yu mu ne woon nan ko teg ci usmaan Sonko bu doon ni procureur bi li mu sàkk woon ñaari at benn bi muy tëdd benn bi nekk sursis bu doon ni loolu daan nan ko kii di Ousmane Sonko Ousmane Sonko tey jii réew mi neneen lay demee maanaam du nekk candidat wu loolu nag moo ñuy indi ci li sama benn waay doon wax dama ne ko lan mooy problème mu àttekat yu Sénégal lan mooy problème mu yoonu Sénégal munoo problème bi li ci ëpp procureur yi la mun a feeg defuñu ay réforme pour wàññ dooley procureur ci réew mi mun a coow du fi gaaw jigéen doo mu ne doole ji ñu am maanaam pouvoir de vie ou de mort ci citoyen yi mu ne loolu mooy li sonal nit ñi parce que un procureur sañ na mën a jël dogal chargé ku ko neex jël tuuma teg ci ku ko neex maanaam wax lu ko neex parce que buñ doyloo kàddu procureur tey jii ci contrant bi ñu bari euh, def ci procès bi ñu bari ñu ngi doon wax ci biti mais li xew ci tribunal bi ba tax ñu teg Ousmane Sonko daani ñu bari waxuñu ko mais kàddu yu dul kàddu ndëmb wax nañ ko Ousmane Sonko charge bu dul charge teg nañ ko Ousmane Sonko loolu nag bu ko ay nit di dégg te xamuñu yoon. mooy procureur yi dañuy chargé ni tekkul lu ne sañ ko jiñ lu ne mais loolu mun na attiser la fa mais loolu mun na yëngal xol yi mais loolu mun na tiitloo ñi xamul yoon parce que bu ne procureur mooy avocat peuple bi kenn waxul moo nekk avocat pouvoir bi de mais peuple bi mais kooku est-ce que sañ ne lu ne rek mu teg ko ci kaw nit même bu ko sañee sax yenn yi bu ko ngor bañee xel sax da ko dul nangu kon bëgg-bëgg procureur yi ak doole ji leen jox même bu ab takk der woowee nit enquête ko balaa enquête bay daanu bu ko neexee mun la teel ma diw dencal ma ko bu ko neexee mu ni la yóbbul ma ko instruction bu ko neexee mu ni ko jiññaale lii jiññaale lii jiññaale lii ndaxte mbirum Ousmane Sonko il faut que nit ñi def njàngat ci lenn mooy buñ ko yemale woon ci diffamation kase mën na am tey jii li fi am yëpp du am maanaam ñu ngi ci jot a tëj kaso mais aussi ñi ci jot a ñàkk seen bakkan mais aussi Ousmane Sonko gin ci fitnaal mais aussi réew mi ñu jël lépp tëj ko ba commerce bi doxatul transport bi doxatul dara doxatul te loolu jàngat bi ñu ci am mooy tey xaw nañu naajee ñëw liggéey si mais boo jigee fu mel ne Kër Massar bi nga xëyee ba bi dogal bi di daanu day mel ne réew mi. dafa nekk ci lu kenn xamul nit ñi danoo toog seen kër liggéeyuwunu yenn ci bërëb yenn yu jaayee arrêté mais oto ya doon daw yëpp sax dawuñu ñu bari dañuy wax Dakar dem dikk mais la ma daan gis ci Tata di ko gis ci Njaga Njaay maanaam li naan ville morte maanaam dëkk boo xam ne dafa dee comme ni ko Ousmane ko doon sàkkoo mu mel ne loolu la xëy tey ji dund loolu tax yenn saa yi ñu naan jàmmi Ousmane Sonko mooy jàmmi réew mi pour pourquoi ñuy wax loolu mooy bi dogal bi daanoo ñu ne deux mois sursis mais ak deux cent millions ñu dégg maître El Hadji moom ba gëm naa ni képp kiy dugg ci procès contre Ousmane Sonko pour man waroo jël El Hadji Diouf comme avocat pour man li mu la mën a yàqal moo ëpp lu mu la mën a defaral pour plusieurs raisons ci liggéeyam la ne jigéen ci biir séance bi ci information yi ñu ci am jëlee ko ci ay journalistes maanaam bi ñuy àtte àtte bi. am na ci benn jamono lu mu yekkul Ousmane Sonko moom El Hadj Moustapha Diouf da kaa fàtte dem ba juge bi yamale ko na ko fii xam-xam lan fi ñëw di wax ak droit mais ñëw na fi pour di xas ma demb ak ma sàmba wala du ko tam lu ne looloo tax El Hadj Diouf ñiy dute ni El Hadj dafa desee xam yoon ñooñu des fois da nga leen di jëx raison ñun de moo ñu ko gën a xam ndaxte ñun duñu ay juriste mais danoo gis dossier boo gis fii ci réew mi ñu dugal ci El Hadj ci wàllu politique da ngay sentir ni dossier bi day dem ba génn ci wàllu yoon mais egg ci beneen niveau maanaam moom digganteem ak El Hadj du sax mbiri yoon wala mbiri politique wala digganteem ak Ousmane Sonko mais dafa nekk leneen benn acharnement benn mbañeel boo xam ne dafay dem ba sax li mu jàngoon ci droit xam ko bu dee jàng na ko loolu sax da koy mel ne ku koy fàtte moo tax tey jii juge bi. dafa yemale El Hadj information boobu ñu bari jotuñu ci li lay wan ni tamit ëppal am na ci bi ñu génnee ñu ne dogal bi daanu na deux mois avec source El Hadj moo njëkk a génn di yuuxu victoire mooy yooyu muy def showam yooyu muy def ak comédiem yooyu muy def bi mu waxee ba pare amul fenn foo xam ne El Hadj wax na ni fa kii di man ci li ma dégg de bu dee wax na ko feneen mais man li ma dégg laay wax mooy droit civique am ak politique am kii di Ousmane Sonko ñàkku ci dara maanaam mën na dem élection ci bu ko neexee mais ji nga bi El Hadj Diouf waxee wolof ba pare maître Olivier Sur te mu jógee France di avocat Mame Mbaye Niang te nekkoon avocat wu Karim Wade ci dossier euh, CREI ci traque des biens mal acquis Olivier Sur bi mu waxee ba pare fa mu tëjee kàddoom foofu la ñëpp doon xaar looloo indi dal mais bu ñu doon déglu ñenn ñi ci mel ne ñoom El Hadj di déglu yenn procureur yi mën nañu yóbbu ci niveau bu ne looloo tax yenn saay dal am mais yenn saay aussi noon bu nitee gën soppe bu dof parce que nag nguur gi fi dossier bi egg yépp ñoo ko fa yóbbu mooy bu doon ni procureur dafa génn ci dossier bi dossier bi doon diggante Mame Mbaye Niang ak kii di Ousmane Sonko kase ñu bañ ci dugal faux et de faux ay diffusion de fausses nouvelles yooyu yëpp ñu bañ ko ci dugal yemale ko ci diffamation mais mën nañ wax ni ca sûreté urbaine sax la dossier bi di yem mooy ba leen wooyee ci kanamu takk der yi ñu lijjanti ko fa wax ko fa ca la dossier bi di daanu mais aussi di jeex mais aussi li lay wan ni ñoom xambu taal bi à chaque fois da leen di arrangé kii ñu naan Juan Branco Juan Branco. ab avocat français la bu ñëw dugg ci dossier bi Juan Bracon ci xibaar yi ñu am Ousmane Sonko sax xamu ko mais ay yeneen avocat yoo xam ne ñu ngi ànd ak Ousmane Sonko mais ñoo soxla renfort soxla doole ci combat bi mais dem woo Juan Branco ngir mu dugg ci dossier bi Juan Branco dagg ticket France war wàcc ci réew mi defendre client am ñu ni ko doo dugg ci réew mi génnee ko benn mooy ci wàllu yoon ak li jëm ci wàllu solidarité judiciaire foofu jalgati la ñaata yoon la ay avocat sénégalais yu ci mel ni ay Ciré Clédor Ly ak ñeneen ak ñeneen danoo dem ba avocat yi nekk ci réew mi sax képp ku ciy tiitoor wala ngay bàkku ay El fi Diouf danaan man avocat international la moom loolu lay wax pour wane ni moom dayoom ak jéegoom ak fi mu toll moom dafa dépassé sax réew mi mais ñu dugal ci ni dafa am nekk en connivence ak Ousmane Sonko dama leen di expliquer yoo xam ne ñu bëri génnewuñ ko mooy dafa nekk en connivence ak Ousmane Sonko ndaxte moom dafa am benn kuréel politique ga nekkee ca France gi ñuy wax la France insoumise te ñii bu ma jumul ñoom opposant wu yi ñoom ñoo ko ngemb ba tax ñu ne képp nañ ko nan defoon seen i kebaa defoon ko keneen ak keneen léegi Sénégal réew moo xam ne réew teranga mais ñu yàq deru réew mi ba ab avocat mën a jóge ca tugal ñun ko doo fi dugg jamono jooju ñu naan Juan Branco doo dugg ci réew mi jamono jooju lañu may ab avocat mooy Olivier Sur mu mën a ñëw défendre kii di Mame Mbaye kon bu nee la justice bi dafa équitable wala dafa tëggee ñaaxanaay mais loolu dëgg parce que le fait ñu mën a may ab avocat bu Mame Mbaye mën a jóge France di Olivier Sur mu mën a ñëw plaider jamono jooju lan ne kii di euh, Juan Branco moom du wàcc ci réew mi ak raison yu ñu mën a indi teguwul ci yoon ñu dem ba ci bisu procès bi ñu ne certificat médical bi son ko joxe juge bi nanguwu ko parce que certificat médical bi dañ ci war a wax ni diw dafa am ngant ngant loolu mu am mooy dafa wopp ci yaramam ban wopp moom moo ko dal mais lii lépp procureur bi di Ibrahima Bakhoum dañu cee préparé bërki démb man am na ñu mu ko wax bi mu génnee rek dama ne procès bi dina am ñu ne ma lu tax man leen dafa génn juste pour leeral ni kii di certificat médical bi son Sonko yor du dëgg wala certificat médical bi jaarul yoon parce que dem na bay soulever ay asthme dem bay soulever ay wopp yoo xam ne mais Ousmane ko la ko dal moo ko xam dossier médical am moom moo ko xam li jëm ci wàllu secret médical Macky Sall fii la dem ci polyclinique bu hôpital Fann wax ni secret médical ñun fii si sunu réew. nan ko war sàmm sàmmuñu ko moo tax ba kilifa yi bari bu nu woppee di génn réew mi nagam Macky sàll moo doon metti lu ni jë salfaañee ak ak yelleef yi jareg yi fii ci mim réew di Sénégal ci wàllu secret médical ab procureur mën a ñëw tool moom di ko jalgati Ousmane Sonko wopp nag wopp mais procureur du médecin du agence de santé mais du spécial ci wàllu wér-gu-yaram ba mën a xam lii diwa ko dal lii diwa ko dal lii ko dal ma laaj tam benn wa xarit. takk der la mu ni ma ma ni ko pourquoi yéen nit bu defee bu deful yëpp bu ñëwee ci yéen dangeen koy jàpp da ngeen koy jàllale mu ne dafa bari ci ñun ñoo xam ne tey jii dal leen di dénk enquête waaye xamuñu yoon mu wax ma loolu mais li dal Ousmane sonk feebar nag fepp loolu du ab juriste moo ko mën a xam parce que du médecin du spécialiste mais du docteur kon procureur bi bu toogee di wax ci wàllu wér gu day wax ci lu xamul dara wala mu wax rek. pour bëgg neexal nit kon tey jii fi ñu egg yépp li ñu fa egg mooy ay nit ñu amul dal mais nit ñu amul sago mais nit ñu soxor benn njëkkee ne ci procureur yi teg ni lu ne teg mën nañ ko chargé ci kaw nit lu ne mën nañ ko chargé ci kaw nit mais loolu day yëngal xolul nit ñi même procureur bu mënee chargé nit mais day xool li yoon maye mu mën ko teg nit mais lu yoon ne bu ko kenn teg kenn ñu bañ ko ko teg mais boo xoolee li procureur demandé woon yëpp ci kaw Ousmane ko mais bu ko juge bi déglu woon tey fan la réew mi jëm heure bi lan lañuy dund ci réew mi looloo tax nag ma ni kon procureur yi doole bi leen may dafa bari la ma sama benn xare biy liggéey ci ñoom waxoon mooy dafa bari kon bi ñuy def ay réformes ci réew mi wàññi doole procureur ci la mais aussi indépendance de la justice ñu fexe ba justice bi kii di président ak ministre de la justice duñ ci am doole yi carrière parce que lu tax ju tey jii juge bi juge mbir mi bokkul ak juge bi ko naroon a bi passé lan moo waral ñu dindi juge boobu Diop indi Keita mooy kii di maître Ousseynou Fall de vingt quatre heures avant procès bi ordre des avocats doona yëkkati ay daan teg ko ci kawam ci jote boo xam ne da ko joteeg juge bi mais daan yooyu ñu teg ci kawam bu dee ni moom dafa joteeg juge bi nekk en conflit avec un avocat mooy wane ni juge boobu conflit d'intérêt day tax moom du mënati juger loolu da juge bu njëkk bi sant Diop ñu dindi ko tey ji indi kayta tey ji dañ doon wax naan ju juge bi sauvé na Mame Mbaye so honneur Mame Mbaye Niang doon sauvé mais le juge Keita là ki ko juge tey mais kooku sauvé na de la justice tey naam sax bu dee dogal bi duñu ànd ci lépp mais loolu avocat Ousmane Sonko yi ñoo koy jugé xool nag dañuy def recours dañuy def appel ak leneen lu mën ci doon parce que nag ñoom il faut que ñu tey concerté wu ci wàllu yoon mais aussi waxtaan lu tax may wax loolu mooy décision bi bi ñu génnee Olivier Sur daa am lu mu wax mooy dafa wax ci ay mots wax ci wàllu droit mooy avocat Mame bi jógee France mu ne li amoon solo rek mooy baatu condamnation Olivier Sour mooy wax en français de mu ne ak baatu prison te ñaar yooyu yëpp dal na ci kaw Ousmane Sonko mu ne mooy condamné nañ ko deux mois avec sursis mais aussi deux mois d'emprisonnement kenn waxul deux mois kese de dañ ne deux mois d'emprisonnement avec sursis mu ne kon condamnation am na mais emprisonnement am na waaye droit civique am ak politique am du ko perte xam na loolu. avocat Mame Mbaye Niang sénégalais waxuñu ko ñoom ñoom Me bi ñu ñëwee rek Mame Mbaye am na ndam Mame Mbaye am na ndam Sonko du wax ko du dëgg Sonko lii Sonko lee mais tubaab bi bi mu ñëwee dafa ñëw wax avec beaucoup de lucidité mais nag ma bëgg waa Ousmane Sonko yi tey fii nag moo jar a bàyyi xel mooy kii di Karim Wade la jurisprudence Karim Wade parce que juriste maanaam ci wàllu yoon bu ma jumee nan ma baal mais dafa am parallélisme des formes jurisprudence maam Karim Wade. Karim Wade dañ ko daan ci mbiri CREI bi ñu ko daanee ba pare maître Sidiki kabaa moo nekk ministre de la justice dem taxaw RTS mu wax ci condamnation bu Karim mais wax ci amande bi ñu teg ci kaw Karim Wade mais maître Sidiki Kaba bi muy daaneel ay kàddoom li maître Olivier Sur miy wax la waxoon mooy dafa ne Karim ba léegi électeur la jugé nañ ko. daan nañ ko amande nañ ko waaye duwaa civique am ak politique am ñàkk ko ah pourtant bi ñu demee ba élection présidentielle deux mille dix-neuf dañoo génneel kayit ginnaaw ba Karim amee parenage ñu ne mooy candidat bu PDS ñu investir ko mais bi ñu demee ci conseil constitutionnel dan ñu ne Karim mënta doon candidat génnee ci wàllu yoon parce que yoon dafa sew. maanaam mën na la gàllankoor galgal la foo yëgul kon ñoom Ousmane Sonko ak ñoom seen avocat nanu daal man de bu ma leen doon xel daw naa leen bu nu tàccu bu ñu fecc bu ñu dakkasa bu nu pakkar ñi nañu tey ndax tax nguuru président Macky Sall nguuru muusante la mais nguuru ruse la damay fàttali war de maître Olivier Sur dafa ne kii di kat Sonko emprisonné nañ ko teg ci yóbbu ko surtout waaye droit civique am ak politique am du ko perte mën na nekk candidat ñu ne mesure bi mesure apaisement la mais est-ce que waxuñu lool rek pour dalal suñu xel est-ce que waxuñu lool rek pour dóor ñu marto est-ce que waxuñu lool rek pour nit ñi jox leen paracétamol mais aussi pikiir leen ba gars yi na tekk cekk la ñuy lal ñu ngi koy lal ci suuf nañu tey waxuma looloo am de mais nañu tey ndaxte nag maître Sidiki Kaba li maître Olivier Sur wax tey jii ci Sonko mais moom lool la waxoon ci Karim wàdd te ba tey jii Karim wàdd mënatul wote mënul woteel kenn te mënatul falu te mënatul fal kenn kon nañu tey beneen bi tax ñoom Sonko war a tey mooy ginnaaw dossier Adji bi ma jàpp ni du tus du dara ginnaaw dossier Mame bi ma jàpp ni man du dara bu doon ni procureur génn na ci amul ay conséquences politique mbir mi mën nañ ko àtte ba mu jeex dëkk bi dara du fi yëngatu mais politique gi ñu ci dugal mais dafa am yeneen yoo xam ne tey jii te ma gëm ni nag Sonko a gagné la bataille mais pas la guerre <coughs> lu tax mooy dafa am dossier jëm ci mbiri rébellion keroog procureur bi wax na ci. dafa am dossier yi ñuy wax jëm ci woon mbiru terrorisme procureur bi wax na ci ñu wax korog ci mbiri commando naam sax wax ji mu wax bari na bari goo xam ne day joxe sarax sax ba ñu bari gëmuñu ci dara mais yooyu yëpp ay dossier la yu ñu ibbi jëm ci mbiru force spéciale te ma gëm ni fii force spéciale amul Sénégal man loolu laa gëm ba bal ni atte di ma prouvel ni ñi ay force spéciale lañ ndaxte nag ñi ma ci jot a xam ñi ci mel ne ñoom kii di ñoom laa Gueye ñu nu ma ci invité tàkku soo ñu wax ñu ñu déglu benn Ousmane Sarr nitu dégg mu expliqué ñu ñoom ñi demoon ci kaso bi waxtaan ak ñi ñuy jiñ force spéciale ñoom pam mu Pape Mamadou Seck mais beneen bi ci topp mooy ki dëkkee Géejawaay soxna si naan ci force spéciale la bokk man mi toog ak yaayam ñaari yoon ami ja man mi juddoo géejawaay xam lan moo xew dëgg-dëgg xam ay dëkkandoom ak xam léppam ci ko xam ne social rek la doon def ñoom jiñ ko force spéciale boobu ak tey ji mi ngi ci kaso bi dossier yooyu nag moo tax gars yi Ousmane yi bañ fi nekk di tàccu mais bañ fi dekk jàpp ni gañe nañu ndaxte nag wala fi den na ngembal saay-saay day yolom waaye du tas ngembal saay-saay day yolom waaye du tas kon ñoom dama gëm ni du ñàkk ni ñi ngi waajal leneen kon Ousmane Sonko bu mu nalaw mais bu dee nelaw ne nalawee benn bët moog ñi mu àndal parce que yooyu yëpp ay mbir la yu mën a yëngal contre moom am sax temps du leen ko may yo fii ak 2024 mais nun mën a def ba gàllankoor ko dinañ ko def te li ci jotu mooy danay jéem a jox justice crédibilité comme li am tey ñu ne non justice àtte na wax na droit Ousmane ko mën na nekk candidat léegi ñu ne ah justice Sénégal de justice la boo xam ne danoo jub ñoom bu ñu waree àtte dañuy àtte est-ce que nekkul ni ate tey bii dañ koy waajalee beneen àtte dama bëgg ngeen déglu ma de kon dossiers yi jëm ci wàllu rébellion force spéciale terrorisme ak ñoomin seen nag Ousmane ko tey ba ci commando yi. parce que dañ ne fële ca diwaanu Bignona dañ fa jàpp ab rebelle rebelle bi ñu ne manifestation ya doon am Bignona bokk na ci ñi ko doon organiser pour Pastef maanaam danoo jàpp ni rebelle bi membre Pastef la procureur mooy wax de Ibrahima Bakhoum ñu ne am na ñeneen ñu ñuy wër ñeneen ñu ñuy wër. procureur mooy wax ne mu ne am na ñeneen ñu ñuy wër waaye dinaa ko wax la Serigne Cheikh waxoon rek day wax bëgguñu gëm ko waaye waa ji ba mu ñëwee ne yàllaa ko yónni Serigne Cheikh daf nag boo nee nga ne yàlla ñun gëmuñu la waaye procureur ñun tamit loolu rek la nga koy wax parce que ñun nag dofuñu mu ne waa ji ab rebelle la wax li te Bignona la fa faatu ci ay nit ci manifestation amul manifestation gun fay def te bakkan du fa rot ñu jàpp fa ak nit dendale ak Ousmane pour def liaison ak rebelle kooku ñu naan soi-disant rebelle présumé rebelle ne ci MFDC la bokk mooy den ne moom mooy utal xonjam sëriñ Sonko wala ak ay xërëm ak ñoom seen maanaam daal ay xonwu Sonko waajee ko yor loolu la ñu bëgg a gëmloo pour def rapprochement moom ak Sonko pour bu ëllëgee daan buñ koy teg rek mu mën a impacter ci Sonko wala ñu ne la muy def Sonko ñoo ko sant mën nañu wax loolu ñu ñu jàpp ci parcelle naan ay commando ak la leen jàppee mu oyof loolu ñi leen xam te miin politique bi xam na nag politique bi dafa bari ay wàcc bees am ñoo xam ne Sonko moo leen ci dugal moo tax nax leen ci yomb mais ñi ci xaw am expérience tuuti ña ñuy tudd sa parcelle ak waa ji ci Pape Alé Niang jël ji gërëm Pape Alé di gërëm Moustapha Diop pour plusieurs raisons parce que liggéeyu journaliste de ñoom ñu ngi koy def mooy bu nee xibaar daanu na ñu def euh, recoupement mais def investigation bañ a jëfandikoo seen xol jëfandikoo seen xel. mooy bu leen joxee xibaar dinañu xool xibaar fan la jógee ak lan moo ci wér ak lu dul dégg waa ji ne jàpp nañ ko la 14 le 16 ñu woo usman Sonko le 30 ñu ne moo doon waajal ay ñaawteef loolu nu mu mën nekkee Ousmane Sonko ñi ko xam dëgg dégg bañ a dugg ci vie privée képp kuy lëkkale Ousmane Sonko ak sëriñ ak ay xon xamoo Ousmane Sonko foofu laay yem Ousmane Sonko lu dul yàlla gëmu ko yàlla rek la gëm moo defal leen benn révélation tey ji procès bi. daanu na mun naa ko wax est-ce que xam nga ni le 2 xaw ma la 16 février bi ñuy njëkk a woo Ousmane Sonko bu ma jumul le le 16 la Ousmane Sonko bi ñu ñëwee taxaw mag Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko dafa bëggoon bu doon Ousmane Sonko dañ koy àtte moom jour boobu la la ñuy àtte àtte mu jeex daf na waaye dossier bu du dara xam na Ousmane Sonko yàlla la gëm dafa am fit na waaye dossier bi day dossier bu dara juge nan bàyyi juge bi àtte ko. mais ay avocat damay bañ a tudd turu benn avocat ma ne ko Ousmane doo ñu yeb yow mënoo àtte sa bopp ñun ñooy say avocat àtte bi dañ koy pousse ba la 30 loolu moo indi pousse bi ñu poussaat àtte bi mais bu desoon ci Ousmane ko kase kase kase àtte bi du egg fii ba ay nit di ci loru wala ay nit di ci gaañu ay résidence surveillée mais aussi ñu jàpp ci ay doomu jàmbur di leen tëj. kon mais ay okaam ñoo doon def seen liggéey li leen yoon may ñu ko doon jël ci kanamu juge bi moo tax rapport yi bari mais bu desoon ci Ousmane Sonko la 16 la ñuy àtt àtt bi aay bi daanu ndax dafa jàppoon ni deful kenn dara tooñul kenn projet bi procès bi diffamation la kenn mun ci gàllankoor lii di élection am mais liñ ci dugal yépp ak ñu ñi ci dugal moo jur lii lépp te nag mënoon naa ñàkk mënoon naa ñàkk ah. looloo tax li xew ci réew mi yépp am na ñoo xam ne dinañ ko atteew suñ kanam suñ borom mais aussi danoo am rendez-vous devant Dieu mais aussi devant l'histoire parce que nag tey jii li daanu ci àtte bi yépp mooy deux mois avec sursis deux cent million gëm naa ni ñi nekk ci nguur gi te jëlal mbir mi bëgg ko def politique dëgg-dëgg ñoom bu du sañoon tey jii lii du am bu buñ sañoon le procureur wax mooy am mooy deux ans Ousmane Sonko du nekk candidat droit civique ak politique am réew mi tàkk nit ñi di jaamaarloo am na ñoo xam ne loolu moo leen gënaloon mais jaam ak pexeem yàllaam ak dogalam la ma góor ga waxoon munoo bun xartaa mu a mun a ndeyam a liggéey de mun a tër ko yomb na waaye rendi ko moo jafe moom Ousmane Sonko am ku ne ma njombar la heure boo ko bëggee di rëbb di jàpp day tëbaat dem dal ci leneen. te tey jii yenn ci seen i journaux di ay yéenekaay boo déggee ñi revue de presse da ngay xam ne ñii danoo foog ñoom ñooy yàlla ko boo gisee yenn journal yi bind yoo xam ne danoo jege gars yi Ousmane Sonko du nekk candidat Ousmane Sonko sans défense ma gis ci Madiambal Diagne mu bind seen pexale ak seen bëgg-bëgg mais li yàlla di dogal ci Ousmane Sonko billaahi walaahi talaahi mënoo leen ci dara li naan garabu penc la. yàlla mi ko samp moom moo koy aar loolu képp la ji nga li yàlla namm ci jaam bi kenn mënu ci dara te loolu suñu boroom tey jii wax na ci dogalam bii te yeneen i dogal ñu ngi ñëw ci kanam Ousmane Sonko dama gëm ni yàlla rek la gëm pour man pexe yàlla rek moo mën a daaneel Ousmane Sonko waaye nag nay foog ak di njort léegi nag combat bi war a continuer mooy na sóoraale dossier jëm ci mbiri commando yi ñuy wax ay mbiri tappale dossier jëm ci mbiru terroriste dossier jëm ci mbiri rebelle yooyu yëpp ñu ciy bàyyi xel ndaxte mun na doon ay dossiers yu ñu ibbi ëllëg ndaxte am na yeneen i plainte yoo xam ne ñu ngi ko doon waaj lu ne ñu dugg ci beneen bi mooy procureur ñi ngi sàkku ci moom bu dee ni daa mën a wax rek parce que nag procureur parquet général mosuñu gis ab procureur parquet général bi génn di wax loolu bariwul daanan gis ab procureur bu génn comme ñoom amari Diouf ak ñoom kii di euh, Serigne Bassirou Gueye mais procureur parquet général comme Ibrahima Bakhoum gën di wax loolu bariwul lu muy am ci Sénégal kon moom lan moo ko yëngal lu lu yëngu lu ne la ko yëngal ko ëpp doole te nag ñi ngi ñaaw ci xare bi bëgg a dugal Ousmane Sonko bugg ko taxal jaru woon loolu mënoon na bàyyi ñeneen def liggéey bi waaye dossier jëm ci Fulbert Sambou ak Didier Badji ñu ngi leen ci xaar ñu leeral ñun de xamuñu wala ñu dem woo Ousmane Amal Suzanne Camara mu leeral ñooñu lan moo leen faat beneen bi ci topp mooy li jëm ci dossier wu quatorze personnes yi faatu woon mars deux mille vingt et war nañu leeral mais aussi ñi ñàkk seen bakkan ci manifestation yi war nañu leeral mais dossier Prodac war nañu leeral lan moo ci ne dëgg-dëgg. mais dossier jëm ci mbiri Covid bi tey ñi ngi xaar procureur tamit leeral ñu ci ñan ñoo sàcc suñu alal mais dossier tamit jëm ci 45 milliards armement yi ñu doon wax ci diggante ministre des forces armées ak ministre de l'environnement mais nan ñu leeral xaalis boobu ana mu ana armes mais aussi ñi ngi leen di xaar tamit ci yeneen dossiers yoo xam ne jëm ci mbiri Prodac kii di Ibrahima Seck le 2 février 2019 la ci bindoon livre baa ngi. nee na 36 milliards Prodac tey jii dégg naa ko parce que moom dañ ko woon comme témoin moom ak Aïda Mbodj moom Aïda Mbodj ak fàtte naa keneen ci tur bi pour ñu nekk ay témoin mais gëm naa ne bu Ousmane Sonko ñëwoon tey jii ñu àtte àtte bi témoin wax yuuxu dina jub fu ko fegawul Mame Mbaye dina yuuxu ndaxte Birahim Seck li mu xam ci dossier Prodac kenn xamul mu toll kon euh, Toob ñu ngi lay gërëm di ñaan rek ñoom Ousmane Sonko. na leen combat bi jeexagul danoo gagné la bataille mais bañawun geer bi parce que combat bi tam mooy booy yi xeex ba Ousmane Sonko tey jii mën a toog këram mais ñoom Ousmane Sonko war nañ jug taxawu leen ba 400 jeunes yi nekk ci kaso bi ñu bàyyi leen ci ay tappale maanaam jeunes yi ci kaso bi danoo jar ñu def ay manifestation jar ñu jug mais danoo jar a taxawu tamit mais nag mbir mi nag warul nekk Ousmane Sonko kase mooy usman Sonko xeex nan ba mu nekk candidat mais ñi doon xeex ñi ko doon xeexal ba dugg ci kaso bi nag war nañu xeex pour ñoom tamit ñu génn kon di gërëm topp bu baax di gërëm El Hadj Modou Diouf Ablaye di gërëm ñëpp di leen sant di ñaanal ñëpp jàmm mu doon rek contrant rendu bu ñu doon def tey jii ci journée bi ak procès bi ba fi ñu ci toll tey fii ak li war a nekk suñu kanam tey jii ñu ko doon jàng di jégalu ñëpp bu dee am na njuumte di ñaanal ñëpp jàmm bon Ramadan.